teel a jóg baax na ci bépp mbir nawet bi dugg sena daanaka ci biir réew bu Sénégal ONAS di office national de l'assainissement du Sénégal dóor projet bu yees bu ñu duppee feggu nawet ci bët gànnaaru Sénégal li leen tax a jóg mooy def kem kantan ba wàññi eh, lii di mbënn bi gën a dooleel assainissement ci biir réew bu Sénégal Saint-Louis Richard Toll Louga daal di dalloo ab dispositif bu yees waaye tamit matériel bu am dayo lool ci loxo njiit bu ONAS di Mamour Diallo dañu ñëwoon ngir jébbal si matériel boo xam ni dañ koy jox le comité régional bi nga xam ni mooy saytu wàllu inondation yi ni ngeen ko xamee nawet bi yegsi na duñu wax mi ngi ñëw dañ naan yegsi na ndax gannaaw ci biir Sénégal am ay dëkk yu taw kon ñun dañu jàpp ni nawet bi yegsi na ci biir Sénégal jébbal leen matériel bi nga xam ni ONAS moo ko indi ci turu ministre de l'eau et de l'assainissement ak ci turu ministre en des inondations pour jébbal ko comité boobu mu mën a yombal seen liggéey mën a soulager population yi ci wàllu inondation boobu matériel bi nag mën naa ko lim ci bu gàtt euh, camion hydrocureur bu mag a mag boo xam ni mooy def vidange yi mooy pompe mooy indi jafe-jafe yi bu réseau bi amee ay blocage moom moo koy moo koy nettoyé ci bu gaaw euh, Saint-Louis yàgg na koo laaj yàgg na nekk mébétu population Saint-Louis ren euh, indil nañ leen ko bu ko defee ñu mën a def liggéey bi ci ni am na aussi yeneen matériels yoo xam ne ay pompe la jarul ma koy lim ay électropompe ay motopompe ay groupe électrogène ak ay équipement yoo xam ne li ko tax a jóg rek mooy population yi ci nawet bi ñu wàññi seen ay jafe-jafe wàññi seen ay souffrance wan leen ni euh, autorités yi ñu ngi ci seen wet am nawetu jàmm ndox mi bari lool ndax ndox lañu bëgg ndax bu ndox amee mbay mi dina dox réew mi dina naat waaye jàpp nañ ñi itam gannaaw bi ndax mu ñëwee war nañoo ñaan yàlla dimbala ñu ba la cay tegu mooy ay lor yàlla mën koo wàññi. ONAS nag jël na matukaay yi nga xam ne moom la war a def def na ko li ci des ñu bàyyi ko ci loxo yàlla. visite bi la nag ñu ngi ko tàmbali ca saint nga xamante ne am na lu ëpp fukk ak juróom ñaari milliards yoo xamante ne investir nañ ko ci bile mbir ngir saytu waaye tamit gën a dooleel assainissement muy ab prox ndal pour Mamour Diallo muy daal di leeral bu baax a baax projet yi nga xamante ni def nañ ko ci région waaye tamit indi ay leeral ci projet yi nga xamante ñu ngi koy amal. waaw ah, ku ne xam nañ nag ndar dëkk la boo xam ni amoon na ay jafe-jafe ci wàllu inondation mbënn mi sonaloon na dëkk bi waaye son excellence le président de la République Sall li mu toogee ci réew mi ak léegi def na fi investissement yu am solo te waa Ndar teg nañ seen bët mën naa cee lim rek ñett. bi ci jiitu mooy huit milliards yi nga xam dañ ko yëkkati pour l'invest pour def l'assainissement de l'île de Saint-Louis travaux yooyu li travaux yooyu liggéey nañ ko ba noppi euh, réception nañ ko aujourd'hui population ñu ngi koy dund ci seen ay biir kër muy huit milliards de francs CFA. beneen bi ci des mooy dans le cadre des dix ville ci biir réew mi président de la République dégagé na une enveloppe de quinze milliards boo xam ni assenissement la tam jëm ci Ndar. te bi ci pàcc bi ci ëpp solo muy quartier bi nga xam ne moom la ñuy wax Pikine foofu nag ma dalal seen xel ndax xaar bi yàgg na toogaay bi métti woon na waaye mun naa jël engagement fii ci kanam ministre bi ak kanamu gouverneur ne incha allahu taala liggéey bi dana commencé waat léegi ci biir mois de ci biir mois de juillet bu ko defee ñu wàññi seen jafe-jafe wàññi seen souffrance ci wàllu inondation Euh, beneen bi nga xam ne mën nañ ko waxtam tam ci investissement yi nga xam ne moom la président de la def mooy le projet de l'université de Saint-Louis foofu tam dugal nañ fa deux milliards de francs fa liggéey bi mi ngi en cours te incha allah bu pare université de Saint-Louis ak li ko wër am nañ yaakaar ni ci wàllu assainissement dina am lu bare bare lu mu fa lu fa def. file nag autorité yi dalloo nañu yile ay matériel ci anam yu ànd ak mbette lool noonu la ñuy daal di def rek rafetlu liggéey bi ak engagement bu ONAS di yëkkati kàddu encore une fois pour mbégte bi nga xam ni moo nekk ci ñun man en tant que maire di wax ci turu population Ndar te ñun lépp luñ ci mën pour topp ci euh, ànd ci aussi jàppale leen dañ ko def beneen mbégte bi mooy matériel bi nga xam ni indi nga ko teg ci loxo gouverneur nga xam ni ñoom moo yore kuréel boobu ñuy wax le commité local de gestion des inondations ndar dëkk ndox la comme nu ma ko xee léegi donc buy taw taw bëri xam nañu am na gox yoo xam ni macha allah ndox mi dafay bëri donc boo indee matériel ñu jëf ci wàllum inondation ci wàllum assainissement du assainissement même du en général parce que bone ne ay camion hydrocureur camion hydrocureur ci wàllum assainissement curage yi lay nekk ay moto pompe ay plaque ay armoire lu nekk loolu dafa nekk loo xam ni dana jàppale maanaam liggéey bi ci wàllum inondation loolu dañ koy rafet lu baax a baax parce que man fàttali kiwuma fu ñu amee lu toll ci matériel yu mel nii donc effort yi nga xam ni def ko ci turu président de la république dañ koy rafetlu bu baax a baax te am na leneen loo xam ni xëy na jotuma kon wax mooy liggéey bu ñuy wax ni maanaam la curage les opérations pré hivernage dafa teel naa tàmbali léegi bu njëkk dañoo xaar ba ba comment dirais ba taw bi ñëw ñu tàmbali mais léegi mu jeex te gëm naa ni dana jeex avant taw bi du ñëw loolu dafa nekk loo xam ne aussi dana soulager askan bi dana tax ndox mi du tag fenn foo xam ni maanaam euh, voilà da doon da doon taa te gis nañ aussi yeneen liggéey yoo xam ni am na tàmbali na fii ci Ndar ci wàllum assainissement boo demee Cité ñax dañ ko fa gis boo demee même ci avenue Général de Gaulle bi gis nañ ñu ngi décaper maanaam mbedd yi pour moom fa def ay tuyaux de canalisation maanaam yokk wàllum assainissement lool vraiment dañ koy rafetlu bu baax a baax parce que dañ ko dugal ci cadre programme spécial de désenclavement ànd ci ak waa ONAS di ko liggéey. mu indil ñu matériel bii nga xam ne ku ne gis na ko muy ay électropompe électropompe mooy yoo xam moom mooy yoo xam ne courant lay dawee xam nga liy dawee courant moom doo fa nekk di xëcc ka visé ka et cetera macha allah dañuy def descente ak di am problème gasoil descente rek la ñuy def ndox yi nga xam ni moo ñu sonaloon lool ci yenn quartier yi nga xam ne ay points durs la. ndox yooyu évacuation yi dana gën a gaaw bu ñu nee mille cinq cent mètres ñi ka xamul mooy junniy litre euh, fukki junni ak juróomi téeméeri litre ci benn euh, waxtu kon xam nga ne loolu buñ ko tegee ñu am ci yu bari teg ko ci point yi ngeen xam fii ci Ndar yaakaar naa yàlla mën nañ defal sutura bu ndox baree it ñu mën a évacuer rapidement rax ci dolli daaw bi mu jafee mairie bi amoon na matériel yu bëri yu mu defoon muy ay moto pompe yu ndaw ministère de l'unité am ñu joxoon moom mu jël engagement dinañu ko jox parce que ndox bi quelque fois day piégé wu pour ñu mën ko génnee rax ci dolli li ci ëpp solo mooy travaux d'assainissement Pikine yi nga xam ni moom annoncé na niñ incha allah rabi fii ak début juillet incha allah danañ commencé waat liggéey bi loo xam ne yaakaar naa bu ko waxee nit ñi la ñuy xaar rek mooy ñu jàpp ci ak yeneen ak yeneen yoo xam ne lim na ko fii mooy yombalal suñu liggéey président de la république dafa ni ren ñi nga xam ni seen xam-xam màcc na ci wàllu météo ñoom ñëpp neneen taw bi ci kàttan suñu moom dina teel dana bari loolu la ñuy ñaan mais bu teelee pare nag bari ñu indi matériel bu toll nii ñun li ñu mën en tant que gouverneur de région mooy jël engagement ni ak sapeur pompier yi nga xam ne gis ngeen leen ak mairie bi ak service technique yi muy ONAS muy assainissement ak ñëpp ñu engagé wu tàllal loxo nag délégué de quartier tàllal loxo président de quartier te loxo boobu ñu leen tàllal man am naa ci yàqi nit daan ñu ko tàllal parce que man nekkoon naa fi préfet 2013 2014 délégué yëpp xam nañ li may wax dañ daan ànd ak ñun si terrain su ma waa kër bu ñu bëggoon yenn saa yi bu may noppal di dallu ñu bëgg ma yeewu dañ naan eh, weri leen yëre yi rek ma ni bërët tellement que daf ma ante woon ren nag yaakaar naa su ma naataangoo su ma xarit préfet Ndar peut-être dana ko dal waaye du demee noonu parce que boo amee matériel boo xam ni dal na la ni mën a liggéey sa xel day dal bu tawee daal li ñuy ñaan mooy population yi ànd ceeg ñun yi nga xam ne nag dañ koy def muy boucher yu mel ni yenn mbalit yi ñuy dugal ci caniveau yi rigole yi commencé nañ opération pré hivernale bi yàgg na yaakaar naa sax bu jeexul it la des bariwul nañu population yi jàppale ci ay action citoyennes éviter yenn détails yi ak deru xar yi ci tabaski lañ jël ñu sant siiseeg yooyu bu ñu kii seen euh, biir fees ak souvent merci beaucoup yooyu yëpp ñu fexe ba daal vraiment ñu traverser gestion inondation bi ci jàmm ak salaam du ñàkk ndox am du ñàkk ndox bari mais li am solo mooy fépp foo xam ne am na difficulté rek boo leen ñu wooyee incha allah rabi dana ñu ànd ak yéen liggéey ko ba véritablement buñ ci jógee ñu xam ne li président de la république yéene askan wi yéene ko population Ndar aussi am ci benn part de choix parce que comme li ma wax Sénégal dafa yaatu fépp am difficulté la ko indi du ñàkk def mais mooy population buy yokk dëkk buy gën a yaatu man nekkoon naa fi 2013 2014 bu ma ñëwee sentir naa ni véritablement am na loo xam ni bu fekkoon état deful dara kon ko wax il baa ngi nii fi ñu toll ni assainir nañ ko complètement gannaaw Saint-Louis caravane bi taxawul benn yoon dafa daal di dem ci Richard Toll wéyal liggéeyam dëkk ndox waaye lépp dina daal di sotti bu ñu sukkandikoo ci Mamour Diallo moom mi dalal xelu askan wi bi ñu jógee bi ñu jógee foofu ci Ndar dégmal nañ ñëw nañ fii ci Richard tool ni ma ko waxee léegi tam ku ne xam na ne Richard Toll dëkk la boo xam ni dëkku ndox la ndax fii mooy Waalo euh, mar naan euh, marul marul naan donc dëkk la boo xam ne ndox la mu fi ne ah taw nag bu fekk see ndox ñu jaxasoo mën naa indi jafe-jafe d'autant plus que dëkk la boo xam ne tam li ñu ci seetlu mooy dëkkuwaay yi dafa nekk ci ay place ndox dafa nekk ci ay yoonu ndox waaye ñi ngi fexe Euh, am def ay liggéey yoo xam ne yi balaa yàgg euh, danañ ko danañ ko engagé euh, je l'ai pas dit ci sama sama allocution en français waaye mën naa ko wax ci wolof am na financement bu mag boo xam ne union royaume d'Espagne ñoo ko jébbal Sénégal mu war a toll ci quinze milliards quinze milliards yooyu ci dëkk la yu ñuy dëkk bu ñuy wax Richard Toll la Dagana ak Podor et ci biir quinze milliards yi Richard Toll am na ci six milliards te six milliards yooyu incha allahu taala danañ ko investir à partir du mois de février à partir du mois de septembre bi ñu jëm je dis bien à partir du mois de septembre danañ fexe tàmbali liggéey bi fii et mu yokk réseau d' assainissement bi yokk station de pompage yi e daal am nañ yaakaar ne dana wàññi jafe-jafe yu bëree bari yi nga xam ni moom la moom la Richard Toll e, di am. aw loole yëpp ab laaj sampu ndax mbënn dina am file ci at bi ñu nekk gannaaw dispositif yi ñu fi daal di jotal tontuk njiit gi moom leer na nañ. maanaam wax ni inondation moom du am. wala nit ñi nañ tëdd nelaw ren bu tawee ONAS réglé na problème yi loolu moom wax dëgg yàlla ñun sañuñ ko wax mënuñ ko wax ñu ngi ñaan yàlla suñu borom nag mu indi taw ndax moom lañ soxla ndax taw bu naatee bu taw bi ñëwee dëkk bi dina naat nit ñi mën a am lu ñu dundee waaye gis ngeen yéen ñëpp ci àddina bi tey dëkk yu ëpp doole Sénégal gën ñu ëpp koom-koom ñi ngi am jànkantoog ak ak ñi ngi jànkantoog inondation am solo gis ngeen Canada gis ngeen Italie gis ngeen yeneen dëkk gis ngeen France donc changement climatique yi nga xam moom ci monde bi mooy waral loolu waaye ONAS matukaay yi mu war a jël incha allah dana ko jël ànd koog BNSP ànd koog ADM ak yeneen service yi nga xam ñoom la ñu àndandoo liggéey eh, ci ndigalu ministre de l'eau et de l'assainissement ci ndigalu ministre en charge des inondations ONAS dana jël matukaay yooyu ba fexe li nga xam ni mooy jafe-jafe yi population dana am daal ñu wàññi waaye inondation zéro moom euh, mënuñu ko déclarer ndax changement climatique yi ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko waral. waaye nag jàppale ni am na ay instruction yu bees yoo xamante ne teg nañu ko directeur bu ONAS di tàllal loxo responsable yi naka noonee askan wi yëpp ngir ñu mën a boole seen loxo ci xeex bi ba lépp lu jëm ci wàllu mbënn bi moom ñu mën koo xeex naka noonee assainissement ñu gën koo dooleel. assainissement dafa am ñaari wàll dafa am canaux yoo xam dañ koo gas maanaam ay tuyaux yu ne ci suuf muy ay canalisation yoo xam ne du feeñ. canalisation yooyu ONAS moo yore entretien bi moo ko war a curé moo ko war a raxas moo ko war a nettoyé ba ndox bu ñëwee jàll ren joxe naa ndigal euh, ci vingt kilomètres de réseau yi nga xam ne moo am fii ci Richard Toll ñu curé lu mu bon bon bon les dix mille kilomètres te danañ te les dix mille les dix kilomètres mooy dix mille mètres maanaam les vingt kilomètres du réseau joxe naa instruction pour ñu curer les dix kilomètres waaye nag réseau bi nga xam ne nag moom mooy réseau bi ubbeeku te booy romb gis rigol yi muy dox nii réseau boobu nag ay la yéwén suñu bokk maire yi ñoo ko war a toppatoo ñoo ko war a nettoyer suuf si nga xam ne tam moo ne ci kaw tali bi di dugg ci biir rigol yi dugg ci biir réseau bi loolu tam ñoo war a dindi suuf si dindi désempl désensablement bi waaye ak loolu yëpp ñun xam nañ ni maire yi am ñu ci bari ñoo xam ne xëy na seen loxo jotul seen gannaaw maa ngi di lancer appel samay service commencé nañu waxtaan ak ak AMS ñu ngi xool nan la ñu mën a def une collaboration à grande xool mais communes yi nga xam ne am nañu ay jafe-jafe ñu waxtaan ak ñoom e ONAS indi li ma am ak as néew ñu jàppale leen ñu mooy def le curage de ces réseaux là ndax loolu yëpp njëriñu askan wi la njëriñu population yi la. mbégte euh, dalal DG de DG ONAS fii si Richard Toll donc di wax na rek tey euh, la population de Richard Toll donc le conseil municipal l' équipe municipale euh, en premier rang donc le maire de Richard Toll par ailleurs le président de l' assemblée nationale bu mag la ñu am dalal ONAS. président directeur ONAS fii si Richard Toll di ko wax ne population bi kontaan askan bi kontaan mais également aussi li mu fi wax également aussi donc ñu ñëpp dégg nañ ko donc ñu ngi koy xaar et aussi ñu pensé que incha allah li jafe-jafe yi nit di am ci wàllum inondation dina wàññeeku bu baax. gannaaw bi le pàcc yegg si ca Louga ca ëllëg sa Mamour Diallo xam le ni am na ay gis-gis ci li nga xamante ne moom mooy bi lépp diwaan ndax xam na ko bu baax a baax xam na ni bërëb bu ndox la te tamit. jot nañu génne fi nga xamante ne moom la ndox bi di taa loole nag di firndeel li nga xamante ne moom mooy matériel bi ñu fi daal di indil lépp ngir xeex li mel ci njàppandalu gouverneur bu région bu Louga. indi fii ci ci Louga mooy li ñu yóbbu woon Ndar yóbbu ñu Richard ndax xam ngeen ni son excellent président de la République Macky Sall dafa jox une importance particulière li nga xam ne mooy mbënn mi. te bokk na ci mesure yi nga xam ne jëwoon nañ ko foofu ci conseil interministériel bi mooy ONAS na gën a góor góorlu ba descendre sur le terrain euh, yokk li mu doon descendre yokk li mu doon wàcc ci terrain bi dem seet équipement yi nga xam ne moom la ONAS am xool suñu réseau d' lépp lu fa lu ñu fa war a jooyanti ñu jooyanti ko bu dee curage bi la jàpp naa ni fii Louga curage bi commencé nañ ko am naa yaakaar ni d'ailleurs bu ma ko visité ba noppi danaa jox instruction ñu yokk le volume bi ñu war a def fii ci Louga euh, beneen bi ci des sam xam ngeen ni Louga am na équipement yu fi nekk la la STEP mi ngi fi am na aussi ay station de pompage yoo xam ne ñu ngi ko liggéey fii waaye am na surtout ay barab yoo xam ne dafay taa ci biir dëkk bi ay point yu ñuy wax ay point dur ay point noir yu nekk ci ay quartier périphérique loolu kenn dama ko jàngal ndax maa ngi yéen ñoo koy ñoo koy dundandoo fii laa dëkk bokk ak yéen di di ko di ko dund guddi ak bëccëg. ah point yooyu yëpp nag biñ ko bi ñu jóg gouverneur joxee rapport am gannaaw bi fi ministre des inondations ñëwee recensé nañ ko xool nañ ko. loolu moo tax tey ñu jël décision indi leen matériel boo xam ne bii teg ko ci loxo gouverneur moom bi nga xam ne mooy jiite le comité de gestion des inondations ak ñi mu àndal ñëpp. bu ko defee ñu mën a préparer nawet bi ci jàmm matériel boobu nag nii la tëddee am na camion hydrocureur bii nekk suñu gannaaw camion hydrocureur mooy camion bi nga xam ni moom mooy manque réseau bi bu dee am na ay pont yu am ay jafe-jafe ndox mi du jàll muy taa ci mbedd yi di tuuru ñu koy gis ci mbedd yi camion boobu lañuy ñuy ci ci midi du néew am na équipement yi mu àndal yëpp dernière génération la danañ ko dugal fii mu manque ndox mi ci nañu mu joxe ay résultats yu yu yu yu mucc ayib euh, am na aussi ay électropompe électropompe mooy pompe yooyu nga xam ne mooy ci courant lay doxee waaye mooy manque ndox mi nañ ko teg ci loxo guverneur ah ñu seet barab yi nga xam ne doon na am ay jafe-jafe ñu yóbbu ko foofu mu mu mën a pompe mu mën a manque ndox mi may fàttali sapper pompier yi ñu àndal ñoom tam am nañ ci liggéey bu am solo ndax pont yi nga xam ni fa la ñu war a liggéeyee ñoom xam nañ ko te pare nañu dèjà proposition nañ matériel bi fa war dem pompe yi yi ñu war dem indi nañ ko matériel bi fay dem indi nañ ko incha allahu taala bu naa bi commencé ñu ñu tàmbali liggéey bi. indi nañ aussi li ñuy wax plaque font lu toll ci juróom fukki plaque fonte 40 euh, tenues ci pour comité bi ak personne bi ciy liggéey ndax ñiy liggéey ci ci ci ci loolu soxla nañ ay tenues de travail nañ ay masques. ndax ku ne xam na ni rigole yi xet gi fay jóge neexul soxal nañu aussi ay ay paire de gants ay dàll ay torche ak yeneen matériels yoo xam ne lim naa ko léegi bëgguma tàddal gouverneur muy matériel bu am solo boo xam ne jox nañ ko euh, le communité de développement euh, comité bi nga xam ni moo war a moo war a saytu wàllu wàllu wàllu inondation yi ci fii ci biir Louga am nañ yaakaar ni daal ah loolu monsieur le gouverneur bu fekk see li fi nekkoon xëy na Louga dana am sérénité dana mën a am ak dal goo xam dana ko mën a xaare nawet bii di ñëw incha allahu taala développement mën nañ ko amal ci biir réew bu Sénégal rawat na nag jamono ji li nga xamante ne dóor nañu plan Sénégal émergent di PSE waaye loole mënul nekk mukk faw gënuñu dooleel li nga xamante ne moom mooy assainissement ci ville yi assainissement dafa bokk secteur yi nga xam ni mooy secteur de développement bu assainissement amul dëkk bi warul développé ni mu ni mu du développé niñ ko niñ ko bëggee. Mamour Diallo directeur général bu ONAS file lay daal di boucler maanaam jeexalee li nga xam moom mooy bi lépp campagne ci quartier montagne nekk fi nga xamante ne fii la juddoo mu teg fi nag ay projet yu am solo yoo xamante ne lépp mu ngi jóge ci budget bu ONAS lépp ci bànneexu askan bi. fii ñu taxaw tey muy montagne euh, ñu décidé woon ci budget ONAS def extension de réseau. moo loolu nga liggéey booba nga xam ne président liggéeyoon na ko fi muy liggéey bu am solo ah, joxaat nañu instruction pour ñu ñu def extension bi euh, nu mu gën a baaxee ba population yi gën a mën a am taux d'accès bu baax ci wàllu assainissement te ku ne xam na ne quartier yi di montagne euh, montagne gàdd gi artières yi tuuti ci artières yi euh, bayax jéemeen ak quartier yi ko wër xawoon nañoo tumuranke wàllu assainissement am na investissement boo xam ne lancé nañ ko travaux yi ci alxames ñëw naa visité ko entreprise baa ngi liggéey tey dugal nañ lu war a mat deux cent deux cent mètres loolu lañ ma wax te danañ liggéey quatre kilomètres quatre cent ci biir dëkk bi ci première phase te bu liggéey bi jeexee ñaari téeméeri kër ci zone yi mu bokk danañ leen defal réseau assainissement boo xam ne ñoom lañ koy dañ leen koy may ci kàttanu suñu borom ah euh, loolu mooy première phase bi ñi ngi étudier waat beneen phase boo xam ne bii bu ñu ko suñu doole mayee danañ ko yokk gën koo gën koo yaatal ndax instruction yooyu moom la ñu moom la ñu moom la ñu moom la ñu am. axe bu majeur boo xamante ni. bokk na ci politique bu gouvernement bu Sénégal rawatina bu njiit réew bu Sénégal Macky daanaka boo fàttalikoo ci déclaration de politique général bu amadu Ba di ilimaanu jawrin bi leeraloon nañ ko muy xeex lépp lu jëm ci wàllum mbënn bi ci biir réew bu Sénégal Mamour jàlloo ak waa ONAS ñëpp jóg taxaw takku doon benn say ngir mën a dooleel bi xeet ci biir réew bu Sénégal di assainissement